Serigne président des exportateurs de métal du Sénégal nous s'exprimons sur la situation préoccupante liée à la fermeture de l'exportation d'aluminium et de carrettes d'aluminium suite à la décision du ministre Serigne Diop depuis cette fermeture les prix d'Assa ont chuté le prix de l'aluminium est passé à 950 à 750 francs et celui des canettes d'aluminium a baissé de 550 à 450 francs. Les fournisseurs subissent une perte de 200 000 francs à 250 000 francs par tonne. De plus, les exportateurs rencontrent des difficultés financières. Nous avons des soucis avec les banques et nos partenaires qui sont à l'étranger et on se trouve avec des stocks de matériel qu'on ne peut pas exporter. Nous voulons attirer l'attention du ministre sur la capacité d'absorption des industries, car ils ne peuvent pas absorber que 1000 tonnes d'aluminium par mois. Alors qu'au Sénégal, on collectait 5000 tonnes par mois. C'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes de paiement, car ils demandent d'attendre 10 voire à 15 jours, les industries font de, l'exportation comme nous, car ils achètent le produit et le transforment. Après, ils exportent. Alors pourquoi on nous interdit d'exporter La situation est également critique pour les travailleurs à Mbebes, où plus de 1000 personnes qui trident les décès de canettes se trouvent dans l'incapacité de vendre leurs produits car les industries ne veulent pas ce genre de canettes. Nous demandons une audience au ministre pour discuter de ces problèmes et des neuf licences d'exportation déjà évaluées, ainsi que la situation des Sénégalais en attente des dépôts agréés alors qu'ils ont des documents nécessaires. qui Sénégal suis qui maa man la Serigne Mama Soxna nga xam ne moo jiite exportateur yi nga xam ne ñoo nekk fii si Sénégal nga xam ne ñu ngi ci àndat ay suñu mbokk indien yoo xam ne depuis euh, lu mat fukki at fukki at ak juróom ñu ngi ci réew mi nga xam ne tey ma seen président jiite leen ñu nekk suma ginnaaw soo gisee ma sonn si nag parce que je suis seul exportateur jiite kuréel googu ma nekk sénégalais ba am na ñeneen ñaari exportateur yoo xam ne ay sénégalais lañ waaye bokkuñ ci kuréel gi waaye ñun ñëpp ñoo bokk exportation bi ba tax na situation bi ñu am nii tey nga xam ne ministre bi dafa tej li nga xam ne mooy exportation aluminium ak canette sans ñu waxtaan ak ñun te exportation bi bañ ko tëjee ba léegi sénégalais yi nga xam ne mu ngi toll si juróom-ñaar fukki junnee ferrailleur nga xam ne ñu ngi nii si biir Sénégal nga xam ne ñoo la collecté aluminium bi ak canette bi.

dana ci doon waxtaan ak ñoom waaye dafa tëj almunion yoo xam ne waxtaan amul si concertation amul si nga xam ne dafa seet ay étranger lu mat ñeenti industrie mbaay unité la tudd laa ko mën a tuddee parce que du ay industrie yoo xam ne ñaar yi ñu ngi sa fële nga xam ne mooy Sandiara xam nga moom mooy la maire maire de Sandiara te ñëpp xam lu mu gum doon def ngir indi fi ay industrie waaye ginnaaw bu mu indee ñaari industrie yooyu Sandiara ñooñu ay étranger lañ ñii ay chinois lañ ñii ay leneen ak leneen lañ ñooñu nag dañu fekk ñun ci secteur bi ñun ñu valoriser ko secteur bi tey ñun ñoo ko dem ba nit ñi xam ko kon ñooñu ay ay industriel waaye ñooñu tamit dañuy exporter comme ñun parce que industrie yooyu ñun ñoom defaruñ matière finie ñoom suñ jëlee armignon bi dañ koy togg def ko ay briques exporter ko génnee ko réew mi ñun ñii toog tamit ñun suñ jëlee armignon bi dañ koy chargé ci conteneur exporter ko génnee ko réew mi kon ñun ñoo bokk mel ni métier bi ñuy def kon waruta jël armignon bi féetale ko ñooñu arrêté na ñun dootuñ liggéey loolu dafa nekk loo xam ne lu dooy waar la du fekkoon ñoom dañuy lakk armée ñoom defal ci ay kin ay bool mbaa ay sées da ko jaayaat ci biir réew mi su boobaa mun nañ wax ne ñoom lañ war a gën a mën a favoriser waaye ñam jox armée ñoom bi tey te ñun ñoo leen ci jiitu defal ko ba heure bii mii ay étranger man ma nekk sénégalais employé ay nit kii nekk un nenge boo xam ne ba mu ñëwee Sénégal ba léegi chaque jour rek dana am dana dana jël trente personnes yoo xam ne ay sénégalais te loolu yaakaar naa ne bokk na ci politique Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy président ba Bassirou Diomaye Faye képp indien bu toog fii tey yaa ngi employé minimum waxuma na employé de même ay embauchement kii embauché na juróomi nit di fay IPRES ñii ak ñooñu kenn ku nekk te kenn ku nekk rek lu nga génnee si alal dugal ko ci biir askan wi nga xam ne da ngay dimbale un sénégalais boo xam ne amul moyen ci banque. amul garantie ci banque nga yëkkati ay 6 millions 7 millions ñi ñoy financé li nga xamne moy secteur bi plus de 70 000 personnes ñoo xamne ne jël seen alal jox leen ne leen dem leen ngeen outil bagage ngeen ñew jaayaat ñu loolu wax deug yalla dama yaakaar ne ministre bi su ko xamé woon noonu du ko défé nonu kon ñu ngi koy tàllal loxo pour mu recevoir ñu de plus rapidement possible parce que licence yi mo ñu ko joxone mo ñu ko renouveler parce que Abdou Karim Fofana dafa ñew fekk licence yi jeex mu renouveler ko mom Serigne Gueye Diop ba taxna Abdou Karim Fofana ba joxe na fi ñaari agrément yoo xam ne ay dépôt agréé lañ kon moom ba mu ñëwee am na yeneen ñaari ay ñett ñeent yoo xam ne ay demandes yoo xam ne ay dépôt agréé lañ te mu ngi ci table ministre bi ginnaaw Abdou Karim dafa am fu mu taxawoon kon moom war na mën a yeggali tamit dépôt agréé yooyu képp ku ko soxla fii si inñe yi fii ñu defal la dépôt agréé mbaa dépôt boo xam ne dépôt normalisé la nga mën a liggéey parce que kenn ku nekk fu toog fii ngi jël dépôt boo yaa ngi ciy fay 1 million 500 mille ñu ngi fay benn dépôt sax kenn ku nekk

di ko génnee réew kon ñun tamit war nañ ko mëna génné génne réew parce que ñoo ñoo ci jitu lolu mo doon tay dajé bi ñu wax né ministre bi nu ñu recevoir de plus rapidement possible ñu ngi lancer appel kam ci premier ministre ki nga xamné moy Ousmane Sonko di xamal kan né ko secteur informel bi dañ ci wara jital sénégalais Sénégal yi balañ ciy def len war nañ am concertation té ñu ngi kay ñaan

ëpp na fukki junne ba ñaar fukki junne ba fanweeri junne nit asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. si ngeen amee ay questions yi ngeen poser amna ci ñi dama bëgg ñu wax parce que yag nañ ci réew mi ñi am nañ fi ay jabar ñi tak nañ fi ay jabar ñi ay ay ay ndolañ te luñ boot ci ay sénégalais kenn ku nekk rek ëpp na 500 personnes. kon lolu wax dëgg yàlla waruñ ko sàgganee asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu dinaa jox kàddu gi ki nga xam ne mooy attab nga xam ne mooy suma secrétaire général ngeen jox ko laaj ko ay questions tuuti mu tontu leen si. Une chose de l'exportateur pour charger aluminium et les fonds. Nous sommes les problèmes pour l'exportation de l'aluminium, canet et les fonds. Pour le moment, depuis qu'on a trouvé les licences. C'est ça que nous on voulait. Le euh, ministre M. Euh, Serine Gaïdjou, il n'est qu'à voir les situations pour tous les exportateurs. Il va donner les bonnes choses et nous, on va travailler tranquille ici au Sénégal. Merci beaucoup.